ñu oo kapinta si ñun ñu ngi nii man kapinta la soo seenee tisaat moo sol sax da ngaa gis ne lii organisé bu nekk am nañ seen on tisaat na sax the organisation of Gambia Carpenters and Allied Workers ok so ñu oo kapinta si bés boobu noonu am na surprise boo xam ne yow aussi jàmme boo bu nekk nekka bundum police am na ko bu ñu koolee bés boobu bu ñu àggee foofu rek buñ startee di teg suñu taj ñëpp ku nekk a téye benn place sax fekka yàlla moo ñu dimbalee seen maintenance team yi police euh, Gambia police force ñëwoon nañ foofu bés boobu dañ ñëwoon pour ligue jàppale ñu waaye bu ñëwee fekka ñun nuñ téye rek ak liggéey bi nu doon demee sax ñoom yëpp dañu toog xam ne xale yi xam nañ lu ñoo def dat very day lañu ruuf ruuf bi yëpp ñu ne leen ceiling joint waaw ñii ñu ngee ruuf ñii ñu ngee defar fii buñ paree ceiling bi tamit one day demal nga seet is most di de dafa bokk si eh, police station yu gën a nice si biir dëkk bi because professionnel ok maa ngay ñaax maa ngay ñaan ñëpp képp ki nga xam ne skill worker la dama bugga ñu ñëw léegi right now ñu ngi amee eh, eh, office boo dee Churchill Sound after fii suñ buggee suñu adresse ak everything yëpp ñu ngi ko amee on a ça ba pare organise nañ san képp ku nga amee ne euh, steel workers steel worker la dañ dañ laa invite lii dafa da taxaw luñ ko waxuñ Serekunda organisation Gambia bi yëpp la ba pare ñu ngi taxaw pour ekkati campagne bi nga amee dañoo bugg a round Gambia bi yëpp waaye amuñ jumtuwaay yi waaw ñu ngee ñaan waaw nguur gi ñun ñooy nguur gi waaye suñu liggéeykat yi nguur gi ñu ngi leen a ñaan ñu amee jumtuwaay yooyu noonu ñun wëgg nañoo def campagne boobu noonu pour sensitiser Gambia bi yëpp ñu nekka together because ngëriñ force ngëriñ bu ma fi gis force ngëriñ bu ma fi gis mooy xamante Gambia bi dafa tuuti torop force xama force ngëriñ bi mooy xamante suñ xamantee dinañ mën a yërëmante suñ xamantee dinañ mën jàngalan suñ xamantee dinañ mën xam suñ soxla waaw through this organisation kenn su feebaree sax ñëpp a ko dee so dama foog ne suñu amee doole bi nguur dimbali ñu ñu mun a mobiliser di whole Gambia ñu ñëw nekkat together ba pare amuñ benn office buñ jógee foofu noonu buñ organiser organiser Serekunda fii ba pare dem nañ ba Brikama ñu organise foofu noonu tamit ñoom tamit taaw nañ mbootaay boobu na taaw na right now ah, seen président baa ngi nii mooy daat bi sol xaftaan bi nii mooy président yi waa Brikama West Coast Region am nañ KSM am nañu West Coast region am na ñoo xam ne bu sumbaala lañ leen organisé waaye loolu doyul ñu waaw luy suñu ene moo ñu def Gàmbi yëpp benn benn baat ba pare si benn voice lañ dee waxee waaw so luñ moo bëgg a wax still workers yi luñ mun a def am na lu bari loo xam ne ñu ko import si biir dëkk bi ñun mun nañ koo liggéey am 100 pour mun nañ ko ba pare góom naa ne lu gars yi di import di ko indi si biir dëkk bi ñun lu ñoo liggéey mooy a garanti loolu loolu am naa garanti last time dañ demoon mini gis am am leeta bu ñu bindoon si ministre of trade waaye ñun waxtaan nañ ak moom wax nañ ko ni am na even table office office table yu bëri book self si sente table sii nii ñun mun nañoo liggéey loo xam ne lu daali te amuñu équipement waxuma la suñu amee équipement be pare waaw mang ngi di gërëm di len sant luma bëgg wax suma ko naré wax yépp waaw bàyyi maa man ma ngi tuddu Amadou Diallo ma ngi bok ci association weldasi suma wax du bari damay wax tak touti ci walu weldasi comme man weldala dala. lu ñuy gën a mun ñaareel dañ dañ daan wax ne Gambien si duñ dee faral di jàng métier waaye mun naa wax ne ay fourteen years si ginnaaw bu ñu comme bu président bi toogeeg léegi diir bu ñu toll ni mun naa wax ne yuut si ñu ngey jàng métier bu baax bot lu tax gisuñ leen ne ñu ngey jàng métier mooy nanguñoo organise because nit ki sax soo ko buggee dimbale tamit dafa laaj nga am foo koy fekk waaye ñun tey organise suñ ba tax na te even si government jógoon tey ne dafa dimbale ouvrier yi fan la leen di fekk ana ouvrier yi gos ñu ngi tasaaroo so bari na ñoo xam ne ni tey depuis 2010 bu ñu formé this association dañ dee oote bon most of dem da ngay boo remba nit kuy naan ataaya sax nga ne ko nañ dem meeting sax mu ne la loolu waste of time la te li gën a waste time moom mu ci kaw mooy baraada bu mu toppa every day mu ngi ci kaw baraada boobu noonu musu see gis njëriñ nga nekk si dara two years three years gisuloo si njëriñ war ngaa change système nga seet beneen yoon booy jaar ndax dina tane ok ñun mbootaay bii nii diñ ko foomee suñu yéene yëpp mooy nañ fexe ba képp kuy liggéeykat ci biir dëkk bi nga mun a xam ne liggéeykat bi am na ak xam kon nit ki tamit balaa ñu laa mun a respect nga respect sa boppa respect sa boppa bi mooy nga xam li la war xam li nga war a def xam lan mooy sa responsabilité tok bi because doomu adam da nga wara a am responsibility because bala nga tok ba toll ci yenal amna ño xamne ni tay deug la mut nañoo takka jabar bi because ñemewuñu see bi ko of nekkun ci dara da nga xey rek di xaar broda bu dewe Europe dimbalé la o sista bo xamne ni mo fa nekk di struggle yor kër gi yor sa yaay yor sa wolbatu ko nga ne yow na la di defal say service ci ndaw yi nga bugg a am ci bi dëkk bi dafa sat te amna lo xamne tamit mu ngi ci so gisee ñëpp naab ci tukki bi leena la bi ko sa ouvrier bi gisuñ ko mu nekk si lo bi nit ki tamit si lu la gisee rek si la lay mun a ñee suñ gisoon ouvrier bi di dawal moto bu rafet di ta dëkk si kër bu naaj ñëpp dinañ bu ko nekk ouvrier bot soo gisee soo gisee ñëpp bëgg tukki rek da nga gis always ku jógee Europe bu ñëwee rek nekk condition bu so always yow tamit sa tagge doomu buka lu mu bëgg a nekk condition bu normal so su ma gisee ne kii dugg na fii dem na Mauritanie sax ñëw na am na kër dawal na moto man tamit amaa tàgget Mauritanie so suñu wóoree ne so moo tax always dama ne suñ ñëw GRTS bi ñu def ñu yokkal lu bari because of suñ 2010 ñu ngee oote nañ leen mobilize pour ñu jàppalante ñu nekk benn ñu mun ñoo ku ñu bugg a dimbal xam fu mu ñoo fekka bon lii rek dina wonte képp ku seetaan télé rek di nga jàkkaarloo yoo xam ne dëgg rek ok ñii lu ñu ma doon wax ten two years ago ndekete caaxaanu ñu ngi ci koom gos suñ booloowut duñ mun a xamante mbooloo mooy isi xamante xamante mooy isi yërmante yërmante mooy isi jàppalante soo suñ booloowut loolu yëpp du mun a am soo da ngaa gis ne ñun depuis bu ñu organisé ba tey am na loo xam ne ni dëgg dëgg dëgg mu ñu ngi koo dund fi ñu toll dafa neex because man mun naa am problème tey ma jógee bundung su ma we workshop a ngi bundung ma ñoo am fii liggéey di liggéey ma am problème bu ndaw pour ma delluwaat workshop dafa maa nekkal problème but because of this association am na suma mbokk boo xam ne ñoo ko bokk damay gestu rek woog sa ba mu dem mu abal ma lu ma soxla ma liggéey ko delloo ko suñu au lieu ne nañ leen ñu jàppalante ñu nekk benn suñu xamantee rek sa soo seetee liggéey bi tamit leneen ci liggéey bi tamit pour ñun ñu mun a respect suñu bopp because liggéey bi ñu maayoon na time bi jeex na bot li ñu gën a sonal right mooy fu ñu toll nii liggéey bi soo xoolee five years ago wala ten years ago bagage bi lu mu doon jar yokku na yokkuwaat na ñëpp xam nañ ne yokku na but price yi bunta li nga ko doon jaayee démb ba tey ñi moom nga koo jaayee waaye because of amuñ mbooloo pour toog waxtaan soo génnee fii nga topp bitik boo dugg a pot sukkur di seen price lañ koo jaay because borom bitik yi lu xew rek xam nañ ko seen mobile ñu ngey toog together ñu ngey meeting ñu ngey def lu nekk dara mënut a daw without mbooloo without ñuy meeting di discuss so maa ngi gërëm waaye honorable Sidi gis nga lu fi ndaw yi def gis nga lu fi ndaw yi wax nu mu amee solo kon xam naa ne yoon du em ci benn faaw rek mu am bés boo xam ne dinañ leen indiwaat ñu gën a yaatal waxtaan bi ñu gën a may ku nekk mun a gën a wax. defe naa ne waxkat yi wax nañ ko yëpp mhm. ah, soo bëggee lim lu fi nguur gi def pour xàll yoon gi bari na mhm. wax nañ mbiri métier fii. loolu loo tax président Jammeh bu mu ñëwee mu yaatal GTTI te loolu loo tax as we speak mu ngi sampa multi million dollar state of the arts skill center si Ndembaan pour du ne métier yëpp dañ ko lifin fii nii si Kombo waaye si dex gi tamit pour ñoo xam ne ñoo nekk si dex gi ak ñu fi ne dinañ am easy access to Ndembaan métier boo xalaat bu soobee boobu su paree dinañ ko fa def te pour tamit nit ñi xam ne nguur gi duñ mun a jox ñëpp métier duñ mun a wax ñii yëpp ña ñëw leen ngeen liggéeyal nguur gi seen métier bi waaye pour sampa métier yi xalal yoon yi soo gisee am na ku fi wax tamit mbiri jéen yi jëndanteem jaay ak nappa bi nguur gi lu mun mooy ne ah dëkk yi nga xam ne foofu la nappee jéen ñu sampa fa ay yoon pour nit